ñu ngi fi tey ak euh, ministère euh, en charge de la famille et du genre euh, ak ministère de l'environnement et du développement durable en charge aussi de la transition écologique ak acteurs yi nga xam ne ñu ngi liggéey si question climatique yi ak association féminine yi ak ñi nga xam ne daal ñu ngi def lu ñu mun pour que la question euh, de la femme de la, du genre soit prise en charge dans euh, les politiques nationales euh, question genre bi mooy boo xoolee changement climatique am na impact lu bëri si xale yi si jigéen yi si nga xam ne ñoo aussi dañu am ay problèmes de vulnérabilité donc daje bi daf ñuy permettre politique bu ñu mën a def mu nekk si nu ñuy euh, solution yi nga xam ne moom la ñu war indi pour euh, wàññee yàq-yàq yi nga xam ne changement climatique bi mu ngi koy def ci dunduwaay yi si koom-koom yi ñu xool nan lañ koy euh, saafare donc en particulier pour groupe bi ma wax mooy groupe vulnérable yi mooy jigéen ñi xale yi mooy mag yi aussi ak ñi nga xam ne yëpp daal xam nañu ne seen mën-mën tollul noonu ñu xool nuñ leen di gën a jàppale ak question euh, changement climatique bi loolu dañuy wax adaptation mais aussi ñoom am nañu rôle euh, si climat bi parce que jigéen mun na def lu bëri euh, pour solution yi nga xam ne mooy solution climatique yi mun na def lu bëri ci solution yi nga xam ne mooy solution réduction des émissions de gaz à fi de serre sànq ñu ngi doon wax affaire charbon bois de feu loolu jigéen moo koy moo koy moo koy moo koy gérer donc plus ñu leen di sensibiliser plus ñoom ñu jouer seen rôle de façon effective si en tout cas objectif bi nga xam ne moom la état am euh, pour lutter contre les changements climatiques mu nekk adaptation mu nekk euh, réduction des émissions lu ñuy wax atténuation merci. ñëwoon fii tey gunge waa ministère de l'environnement ci ci. Euh, jàngat bu am solo bi ñu def tey jëmale ko ci jigéen ñi euh, ci ci ci ci maanaam ci jigéen ñi en relation avec euh, changement climatique yi xam ngeen ne changement climatique yi dafa impacté bu baax ci liggéey soxna yi te étude bi ñuy def dinañu permettre ñu mën a xam nu ñuy yan solution la ñu mën a def pour que jigéen ñi ñu mën leen jël en compte mu leen taxaw ba changement climatique ni mu leen di affecté mu wàññeeku bu baax lu ñuy souhaité sax mooy mu dem ba seen euh, liggéey gën a càmbar gën a baax mën leen jàppale pour ñu mën a faire face à ces à ce nga xamante ne franchement ñoo ngi def ay euh, kii yu bari pour mën ko mën a jàppale jigéen ñi seen seen nekkin mën a mën a nekk mën a neex si si surtout jigéen ñi nekk si àll bi ñuy liggéey ci tool yeeg yooyu